di am mbégte ak kontaante ci sunu ganu tey mu di mbokkum taalibe di sëriñu daara di docteur Cheikh Babacar Cissé ñu war a séq ak moom laaj ak tontu jëmee ci jëmm jooju ñépp xam mu di Cheikh Alxaaji Ahmad Saxiir rahmatullahi alayhi waaye jàkk ñuy ñëw ci jëmm ji tax ñu dajee fi du ñàkk mukk ñu xam mbokkam taalibe sëriñu daara docteur Cheikh Babacar Cissé fan moo di cosaanam moom moo di kan xam naa kon dañuy wax sunu ganu tey gu tedd gi mu di Cheikh Babacar Cissé tafaddal incha allahu taala nga ak daara waqul jaa ñu doog a ñëw nag ci li tax ñu daje ci bi daara waqul jaa ci say mbokki taalibe waaye lenn ci say taalibe lenn ci say e, dooma ki allahu taala kon tafaddal asalaamaaleykum yéen mbokki daara ji mbokki gulubu waqul jaa al haq wa saraqa al baal ma baat bi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen sargal di di leen nuyu nuyu yëpp taalu bees ci moroom li xam ne moo di ak tolloo rek ci lépp lépp nu bokk ko bokk ndab lu ñuy jëfandikoo bokk lu ñuy naan bokk lu ñuy noyyi bokk nag ki nga xam ne moo nu tax di waxtaan tey mu di Cheikh Ahmad Sakhir Lo radiyallahu anhu ñu jéem a seet rek lu ñuy wax ci moom ndaxte wax ci moom lu jafe la ndax ku ko xam ne kii dadu dadu kenn dadi kenn te du te du moom rek personnage yu bari ñoo bokk nekk ci moom loolu moo tax mu mu amag mu am ak jafe lool ci wax ci moom waaye nag ñu jéem rek ñu ngi leen di nuyu di leen déglu ci yeneen question yi auzu billahi min ashaytan irrajim bismillahi arrahmani irrahim rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي asalaamaaleykum yéen mbokki daara ji mbokki groupe bu waqul jaa al haq wa saraqa al baatil ngeen baal ma bi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen sargal di di leen nuyu nuyu taalube ci moroomam nga xam ne moo di ak tolloo rek si lépp nu bokk ko bokk ndab lu ñuy jëfandikoo bokk lu ñuy naan bokk lu ñuy noyyi bokk nag ki nga xam ne moo tax di waxtaan tey mu di Cheikh Ahmad Sakhir Lo radiallahu anhu ñu jéem a seet rek lu ñuy wax ci moom ndaxte wax ci moom lu jafe la ndax ku ko xam ne kii dadu dadu kenn dadi kenn te du te du moom rek personnage yu bari ñoo bokk nekk ci moom loolu moo tax mu mu am ak am ak jafe lool ci wax ci moom waaye nag ñu jéem rek ñu leen di nuyu di leen déglu ci yeneen question yi waaleykum salaam wa wa barakaatu docteur alxaaji Cheikh Babacar Cissé ñu ngi lay fay nuyoo di am mbégte ci wuyusi gi nga wuyusu daara waqul jaa alxaqu ngir jëmmi xam-xam waaye xamle wala boog fàttali mbokki taalibe yi jëmm joo xam ne mat na di fàttali ndax royukaay la jëmm jooju di alxaaji ahmad saxiir loo rahmatullahi alayhi waaye docteur balaa ñuy ñëw ngir laaj kan mooy alxaaji ahmad saxiir loo dina jaadu ñu xam docteur alxaaji Cheikh Babacar Cissé moo di kan ak fan moo cosaanam ak actuellement fan lay dund incha allahu taala kon tafadal Babacar Cissé day benn waay bu juddoo dëkk bu ñuy wax bari ni si góor gu ñuy wax Cheikh Issa Cissé ak soxna suñuy wax Habibatu Samb ñaar ñooñu ñooy ay waajuram mu mm. juddoo foofu nag yaroo foofu am juróom-benn at yàlla def am magam ju ko magi ay at waxaw waxaw mat bàyyi nekkoon daara ji ñuy wax ko mu daan ko dégg nag ci turam rek ñuy wax asan nga kokki bu yàlla defee ñu gis ku dem muy jooy ne dafa bëgg dem seeti asan baayam ne ko ah, boo demee danga fay toog de Assane day jàng mu ne man day bëgg naa ci bëgg googu mu bëgg nag yàlla def ko bàyyam ne ko bon préparé nañ ko préparé ay bagages am boobu mu ngi am juróom benn at mu daal dem fekki mag ja si kooki daal di toog ko waxee woon toog boobu nag may na ko mu jàng alxuraan ba mokkal ko si ñeenti at juróom-juróom jàng fa ay at yeneen at yu toll si juróom muy fukk ay juróomi at yu yu si topp yépp xam-xam la fa doon jàng xam-xam bi nag euh, xam-xam yu wuute la comme ni ñuy jàngi ci école yi léegi rek yàlla dafa def si ama safirloo teel gis loolu xam ne la mu doon jàng li ñuy jàng daanaka si tubaab yëpp jàngoon na ko ci arab fo foraatu itam ci tubaab laata mu di fa jóge nga yàlla def euh, ba mu fa ba mu fa jógee lu bari lu dul dem Dakar booba benn école administrative moo am ci jamonoy Senghor école boo xam ne bi moom la gouvernement bi reconnaître oon ñu di ko wax franco arabe ku fa jàngiwul woon rek ci daara ngay mën a continuer wala nga jàngi ci réew yi am na chance su def école boobu waaye fekk na am na ñu ko jiitu ñu génne ci daara ji ba def ko itam hmm, ci gàttal daal kooku mooy Babacar Cissé. jërëjëf docteur Cheikh Al ci tontu bu am solo ak uh, yaatal gi ngi ci def waaye bëggoon nañoo xam jamono ji nga xam ne Cheikh Babacar mu ngi fekk magam Assane ca daara jële nga xam ne moo di daaray kokki te njiit la di Al Hadji Ahmad Sakhir yan jamono la woon. ñan nga fekkanteet booba ca daara ja ak booba daara ji ci ban lim la war a toll at yooyu yan at la woon ñan mooy sa génération ak ndax booba man nga xam limu daara ji nu mu tollu waaw wala déet waaw asalaamaaleykum ma del si mu ngi toll ci année cinquante yi si fin bi maanaam mille neuf cent cinquante huit laa dem Koki fekk Mohamed Diouf moomu ngeen xam ambassadeur dëkk Bargny moom moo ko doon alxuraan bi ko bàyyam di jëli nag si laa doon jooy jooy yooyu ba dem si muy mille neuf cent cinquante huit ma dem fekk fa asan asan nag ay moroomam ñoo fa nekkoon itam ñoom ñuy wax ñoom mën daak rek di magi wu sëriñ lugaloo ak eh, mamma ak ñoom góoraloo ak ñoom xalil ak eh, mag ñoo ñooy woon sunuy mag ak asan moomu sëñ Matar bien sûr ñooñu ñoo ko ñooy woon suñuy mag ñoo yoroon liggéey bi ñoo doon organiser ñu si des ñëpp nag ay gone yu ndaw la ñu woon ñooñu si ama saxirloo bu leen daan soxla danaan dem dem leen ngeen wool ma gone yu mag ya gone yu mag ya la leen daan wooye waaw léegi nag ñi nga xam ne ñoom laa fa nekkaloon mooy ñoom Serigne ak euh, frère bu ñuy wax Gabon moom dafa mujjoon bi mu wàccee alxuraan mu dem jàngi tubaab yàlla def euh, mu dem ba sori nga amoon maîtrise sa jàngale bokkoon na si opération maîtrise ak eh, Adama Samb ak Ablaye Samb ak ñoom Dame Mbabuk mi nekk ci école eh, Oustaz Ahmad Lo Almanara ak Mbaye Lo eh, mi Mbaye Lo sax nekkul woon nekkul woon ci daara ji waaye daf fu ñëwoon ci benn lël bu fa amoon lël ba nag man ci bokkoon ñu nekkoon ñetti téeméeri kon nga xam ne bon yàgg nañu euh, bari kokki waaye nag booba lañu doon bari bari comme ma ne woon nañ mille jamono yama fay nekk daal ak ni mu doolee ko sama kanam nangami téeméer war a toll si juróom juróom ñetti téeméer juróom junni ak lu ko weesu tuuti ay comme jamono jooju daawuñu ko eh, seggee niñ koy def léegi foofu dañoo mën a wax rek foofu la man maa ngi nattee sunu lël bi nga xam ne ñetti téeméer yi nit lañu woon tàmbalee ko si timis ba suba teel waaw loolu daal maa ngi koy ak ñeneen ñeneen ñoom jaga ñañ fa nekk loon daal bari nañu ak ñoom Modou Anta ñii ak ñoom Serigne Thiam ak ñoom Serigne Kébé ñooñu nag ñooy wan suñuy mag ñoo topp ñun ñoo toppoon ci ñoom waaye sëñ sëñ Modou Anta ak sëñ Serigne Thiam Serigne Kébé waaye ñoom Serigne Fallou moom ñooñu suñuy morom lañ ñoo fa nekk doo hmm. ñoo bokk jàngaloo yépp docteur Cheikh Alaaji Babacar ci leeral yu am solo yooyu moo di ñi nga xam ne yeney maas ca daara ja mel na ni ñi nga tudd am na ñuñ ci xam euh, gannaaw bu ñu xamee loolu xamit ne docteur jàng na alxuraan ci diirab juróomi at mokkal ko commencé di jàng lenn ci fànn xam-xam comme ni ko daara kokki baaxoo di ko def ba bis jot mu dugg franco arabe ci ndakaaru jàng léegi li ñu bëggoon a xam lan moo tax ñuy wax docteur Babacar Cissé bëggoon ñoo xam yan diplôme bu ñu ñëwoon tey ci kër docteur Cheikh Alhaji Babacar Cissé danañu ko fa fekk yoo xam ne bi mu jógee kokki gannaaw bu mu mokkee alxuraan diplôme yooyu tegu na ci loxoom yooyu bëggoon nañ koo xam ak lan moo tax ñuy wax docteur Babacar Cissé ndax man nga ñu ci ñëwal détaillé ñu ko lenn lu ci nekk incha allahu taala ta nga yaatal. waaw de moom titre la boo xam ne bi kuñ ko jox li mu tekki mooy da def sa doctorat nekkul ku ku soutenirul kenn du ko woowee lu dul ñu def ko docteur loolu nag mën na am nit bu fekkee ne jàng na ba sori te amul woon niveau doctorat waaye mu liggéey ay at dajale bind def ay conférence yu mag wane wane gëddaam si si xam-xam benn université mën na ko oo oh, hmm, tëral li tax ñu woo ko ci xam-xamam ba ñu woo ko def ko docteur voilà moom la mooy doctorat boo xam ne bii honneur lañ koy defe dañuy wax ne kii même bu fekkee ne soutenirul doctorat am li mu liggéey ku ko boole waroon na man li nga xam ne nit ki loolu la def door a am doctorat waaw mais nag bariwul bariwul lu muy am ku ñu ku ñu ku ñuy ooyee docteur rek da jàng ba def sa doctorat doctorat nag mooy bi nga xam ne mooy saada diplôme bi nga xam ne moo mujj ci lii nit di jàng si université diplôme yëpp dafa am lu mu tollool comme ni ngay jàngee primaire am certificat jàngi secondaire am am BFM ak ak boo duggee université li nga daan jëkk def mooy un premier certificat boo xam ni di si ñaari at nga koy def ñu daan ko dëgg léegi nga teg si licence ñu di ko def si ñetti at nga teg si ñu di ko def si ñeenti at nga teg si DEA mu mu nekk juróomi at loolu nag e, léegi après e licence ñaari diplôme yooyu amatuñu léegi master lañ koy ooyee bi si topp bu jëkk bi master deux master 1 ak master 2 boo amee mooy bac plus cinq mooy DA ñun nag ñun nag jamono ji ñu def loolu master amul woon DA moo amoon li maîtrise mooy dangay ngay li ngay def li nga xam jàng ko D DA mooy diplôme d'études approfondies mooy diplôme boo xam ne bi njàng mu xóot la laaj nga xóotal sa xam-xam si loolu nga doon jàng bind si dara soutenir ko la ngay soutenir nag mooy DEA boo ko defee ba pare nag ngay ngay dem dugg si doctorat doctorat itam dafa amoon doctorat premier cycle avant ñoom ñi ngeen xam ñoom Serigne Sam Mbaye ñooñu yooyu lañ amoon ñu daan ñu def si ñaari at nag bi ñu ñëwee toll si foofu fi ñu toll woon ñoom ñu yokk doctorat bi jox ko gën yokkaat si ñaari ñu di ko def si ñeenti di ko wooyee doctorat unique parce que bu njëkk ba da nga daan def ba pare toogaat ñaar ñaari at wala ñett wala ñeent nga toog daal ba ba jékkuwaat préparé waat beneen doctorat boo xam ne bi doctorat d'état lay lay lay doon léegi doctorat d'état dañ ko unifié waaw dafa nekk loo xam ne léegi moom ku am kuy def doctorat rek moom ngay def boo paree nag mention yi itam dañ ko yokk dafa am bien très bien honorable ak très honorable waaw ah. ah, mu ko defee nag léegi eh, yooyu ñu si yokk moo tax ñu gën koo jafeel xam ne léegi kenn dootu ko def si ñaar at waaye ñeenti xam ne day wóor ne kii moom xawma lan waaye li mu jàng moom eh, xam na ko bu baax waaw hmm. ah, loolu nag eh, ku ko ku ko am nag ñu di la ooye docteur looloo ma si andi waaw DEA boobu nag nga xam ne moo li nga xam ne moo moo topp ci maîtrise dama ci def ñaar benn bi mooy matière bi ma defe sama doctorat muy muy anthropologie anthropologie ak sociologie ñaar yi lañ boole am beneen boo xam ne bi relation internationale la ñaari ñaari doctorat laa def door ñaari DEA laa def door def doctorat parce que bii dama ko dama ko tàmbali woon may damay mm, commencé sama doctorat bu jëkk bi bi ma bi ma eggalee dama commencé sama doctorat bii beneen bi ma commencé ko bi may def sama doctorat ma defaat beneen DEA moo moo andi ñaari jërëjëf docteur Cheikh ci tontu yu am solo yooyu ak yaatal yi ngi ci andi xam naa daa am yoo xam ne dañuy tënk laaj yi waaye du ñàkk mukk lenn ci boroomi xam-xam yi nekk ci biir daara waxul ja alxaqu te topp say tontu dinañ ci dellu dinañ ci dellu si ñoom itam jàpp sa numéro laaj la ngir nga gën a mën a indi yaatal ak ak leeral ci diplôme yooyu nga am jëmee ci xam-xam boobu nga xam ne sonne nga ko njëkk ngay am diplôme yooyu euh, gannaaw diplôme yi yépp ndax mën nañoo xam Cheikh Babacar ci lan lay yëngatu jamono ji e, ak it wax ñu fan la koy yëngatoo incha allahu taala su defee ñu daal di ñëw nag ci ki xam ne moo tax ñu invité la incha allahu taala. ci mbirom parce que gannaaw gi def naa fi une si centre international d'études pédagogiques jàngale euh, ko itam ay ay toll si juróomi at agrégation d'arabe aussi defoon naa ko doon agrégatif d'arabe waaye nag waaye at mi ma ko tubaab yi dañu ñeenti ñeent ñetti nit ñoo ñoo amoon agrégation d'arabe bi ce qui ñi ñu admis cible itam taxul ñu admis man nag ci laa bokkoon waaye arabe bi njëriñoo naa ko si yeneen hmm. sama yëngutu moom euh, dama dama pare bëggoon dellu Sénégal at mi bi ma bi ma demee Sénégal yemook université Saint-Louis ubbi ma am fa poste waroon jàngale léeya ñoom loolu la ñuy wax e fii la noonu lañu ñuy noonu la wax mais Sénégal de yàlla ñuy wax ñu jox ma fa poste waaye bañ ma bañ ma joxee poste dafa yemoo woon ak eh, ma am benn contrat bu ma defoon ak ak eh, boîte France bu nekk fii bu doon liggéeylu sur le Sénégal ba ma demee nag ba egg foofu ñu nangu sama eh, nangul ma sama poste waaye man ne ma mënuloo cumulé fekk engagé wu naa ba pare aw ma woon aw ma woon amatuma woon droit jëlaat poste université Saint-Louis ma ne leen nañ nañ ma ko dencal ba déwén te déwén sa mooy jamono Abdou Diouf euh, yàlla def ñu amatuñu budget pour jël ay waaw ah, ñu ne ma da ngay xaar ba déwén déwén si déwén jéeg ma renouvelé waat ñu wax ma la même chose ma ba léegi poste amul jëluñu ak yooyu daaw ñu jël banque mondiale ak eh, FMI ñoo yoroon affaire yi rek voilà comme ni ngeen ko xamee ba tax ma ma mujj bàyyi nag dugg si sama activité bopp voilà pour ce qui sama yëngu si laa nekkee nag euh, indépendant maa ngi euh, dama ko gàtt ndaxte xam naa comme am na yeneen yu ñuy laaj ma ne rek naa ko gàttale nii euh, pour ñu mën a dugg si yeneen yi ci gàttal gi nag ma mën cee dolli ne comme yéen ngi doon laaj samay activité fi mu nekk nii maa ngi retraite ngi ci at yi maa ngi ci retraite ñaari at yi jërëjëf docteur Alxaaji Cheikh Babacar Cissé ki tontu yu am solo yooyu waaye comme ni nu ko waxee lu ñàkk ni ci doon boroomi xam-xam yi dara waqu jaal xaqu dina ñëw gën la laaj ci diplôme yooyu nga am ak liggéey bi nga nekkoon ba xëy retraité tey liggéey boobu solo bi mu am akit it naka nga ko gisee ndax senegal loolu bari nañu ci ko am taqasus walla boo bariwul euh, bu ko defee kon docteur dañuy ñëw ci jëmm jii di alxaaji Ahmad Saxiir Lo rahmatullahi alayhi bi nga demee ba ci daara je ba kera nga fay jógee ak gannaaw ba nga fa jógee am ahmad saxir loo loo jàngee ci moom ban façon nit la lu mu def ci yow gannaaw jàng alquran gi mokkal lan la def ci yow lan moo lay inspiré ci moom ak yan façon qualité nga gis ci moom loolu bëggoon naa nga gën cee yaatal incha allah jërëjëf docteur alhaji cheikh babacar cissé ci tontu yu am solo yooyu waaye comme ni nu ko waxee lu ñàkk lenn ci bon boroomi xam-xam yi dara waxul jaal xaqu dina ñëw gën la laaj ci diplôme yooyu nga am ak liggéey bi nga nekkoon ba xëy retraité tey liggéey boobu solo bi mu am akit it naka nga ko gisee ndax Sénégal loolu bëri nañu ci ta am taxasus wala boo bëriwul euh, bu ko defee kon docteur dañuy ñëw ci jëmm jii di alxaaji ahmad saxir loo rahmatullahi alayhi bi nga demee ba ci daara ji ba kera nga fay jógee ak gannaaw ba nga fa jógee alxaaji ahmad saxir loo loo jàngee ci moom ban façon nit la lu mu def ci yow gannaaw jàng alquran gi mokkal lan la def ci yow lan moo lay inspiré ci moom ak yan façon qualité nga gis ci moom loolu bëggoon naa nga gën cee yaatal incha allah waaw ma jéem a tontuwaale rek bu gaaw diplôme yi nga wax ne taxassus bi maanaam spécialité bi lan la mi ki nga xam ne daal moom lañ tuddee université Dakar muy Cheikh benn bi bi nga xam ne ci laa def sama premier DEA ak sama doctorat mooy li nga xam ne moo ko moo ko siiwal si àddina bi muy anthropologie voilà boo gisee muy bind ay titre di leen ooyee euh, nation nègre et culture wala nation nègre et développement parce que anthropologie la def du développement et de la culture yooyu yëpp anthropologie moo koy def sociologie nag moom moom la nit ñi gën a xam moom la nit ñi gën a xam ce qui fait ñaar yi laa boole def ko ci département boo xam ne département d' anthropologie et de sociologie la noonu la tudd boo paree qui est anthropologue qui est sociologue ñu dina ooye socio anthropologue mu ngoog waaw léegi ñu dem si Cheikh euh, yi moom il faut ñu ma jéem a tontuwaale rek bu gaaw diplôme yi nga wax ne taxassus bi maanaam spécialité bi la li ki nga xam ne daal moom lañ tuddee université de Dakar muy Anta benn bi bi nga xam ne si laa def sama premier di ak sama doctorat mooy li nga xam ne moo ko moo ko siiwal si àddina bi muy anthropologie voilà boo gisee muy bind ay titre di leen ooyee euh, nation nègre et wala nation nègre et développement parce que anthropologie la def du développement et de la culture yooyu yëpp anthropologie moo koy def sociologie nag moom moom la nit ñi gën a xam moom la nit ñi gën a xam ce qui fait ñaar yi laa boole def ko ci département boo xam ne département d'anthropologie et de sociologie la noonu la tudd boo paree tu es anthropologue tu es sociologue ñu dina ooye socio-anthropologue mu ngo waa léegi ñu dem si Cheikh Ahmad Sakhir Lo parce que euh, yëf yi moom il faut ñu gàttal ko waaw laaj nga ma laaj bu ma neex waaye bu naqaree tontu kan mooy Cheikh Ahmad Sakhir Lo ak ak ak lu mu def ci man moom kay kenn ku nekk si noonu rek la muy tontu du nuroog du nuroog euh, tontul moroomam am na nag ay point commun yoo xam ne ku nekk ku nekk di nga si fekk si sa morom waaye si Ahmad Sakhir kenn mënul kenn mënul lim fi nga xam ne yëpp jëriña jëriña na nit ñi le Sénégal amal nañ ko njukkal si wàll yëpp parce que Cheikh Ahmed Sakhir Lo mooy koo xam ne dara la ko lu dul xam-xam waaye xam-xam bi ko gën a ñor mooy xam-xam alxuraan te alxuraan li tax mu ñor ko mooy alxuraan mooy lépp alxuraan mooy lépp xam-xam boo gis mu mu existe rek Euh, mu ngi ci alxuraan ba léegi boo doon liggéey ci Cheikh Ahmad Sakhir Lo da ngay da ngay bind rek Ahmad Sakhir Lo wal atfal ak ni mu leen bëggee ak ni ni mu sawaree ci seen mbir ak ni mu sawaree ci soppi leen ñu nekk magi ëllëg ak fiñ ko egg ba tax na ñoom itam fi mu leen egg boo gisee ay taalibeem yu ndaw gone yi dañuy dañu mel ni ku nekk seen maam rek ñoomee ko lool di ko ñooxu ndax ni mu mel moo ne al si ah, ahmad safirloo wal ilm li nga siy développé yow rek yaa ko yaa ko xam kenn ku nekk la nga la nga gis ci li mu dugal si yow si xam-xam daf lay daf lay doy sëkk boo ne seama ah, safirloo wal quran kooku moom la la Seex Ahmad Bamba doon wax rek kitaabu rabbi kaana li wa kuntu wa lillahi bihi bihi Cheikh Moustapha noonu la def alxuraan alxuraan daf ko nekkal mu nekkal alxuraan ba pare nag dëkkoo ko dëkkoo ko ba tax loolu moo tax eh, addinaam yi yëpp yëpp teey parce que alxuraan rek lay doxe daal foo ko gis mooy eh, nit nit ku mu sàng sàngoo alxuraan rek loo gis mu doxal ko mooy li li mu nekk si li nekk si biiram alxuraan li nekk si biir alxuraan moom moo nekk si léppam fépp boo ne saama saxiro wan naas moom rek moo ko xam bu dul yàlla mi ko mi mi ko ko teg fonk gi mu fonk nit xam ne buy buy wax ak buy wax ak nit ku mu waxal kenn ku nekk nga defe ne moom bu gàttee day foog ne moom la gën a fonk ci nit ñi loolu yëg-yëg boobu ñun ñun ñëpp am ko ak ñi mu yarul ñu teseeg moom nit a ngi noonu koo xam ne ki ku yendoog moom benn bis bis boo yendoog moom da mel ni ku yendu bibliothèque juróomi waxtu juróomi minute laa wax sax wala jom juróomi waxtu ku ko toog moom yi tegaloo ne la óor ne eh, yaa ngi commencé am xam-xam di ko bërile te yëgula ko boo ne saama eh, saxirloo wa tarbiya nga gisati ne foofu moom fa la raay bi seeni képp koo xam ne kii Cheikh Ahmad Sakhir Lo yar na la ku ko mas a gis ku nekk bu la gisee dina xam ne kii am na lu mu fu jële lu mu jële ci kooku ba tax na moom ay mbiram kenn mënu koo wax xam naa toog ni ñuy ni ñuy faral di tooge rek ñi nga xam ne moo nu yar di ko waxtaane di ko waxtaane ba mu guddi te man si yendu si toog ba guddi noonu lañu daan def si kër euh, ku ñuy wax sañ pateloo dañ fa daan dem nekk fa di fa waxtaane ak surtout temps jamono yi fii mooduloo ko caari nekkee ak alaaji fay ñun dañ daan wax ne dañ ñu daan wax ne yéen fu ngeen fu ngeen fekk waxtaan yàq ko fexe ba ba dugal ko si dugal ci si ama taxi loo yemale ko foofu nag ñu ne leen ah bu ngeen amee chance ñu leen di tuddal kooku de ak li mu def si nun ak li mu def si ñeneen nun sax doyu ñu exemple parce que mën naa am doye dinañu doye doye di gu ni euh, kenn mënul gisee si nun richesse bi tax ñuy wax waaye am na nit ñoo xam ne na leen yore la mu def si ñoom ku leen leen gis naw leen te jikkoom rek ngay gis ci ñoom wax daal ci gàttal sama safi loo moom nañ koy nañ koy jëlal tem boo xam ne moom rek mbiram rek la ñuy waxtaane nañ ko booleeg leneen ndaxte euh, lii lii ñu jot a def ci kanam laata ñuy egsi ci ci bi dëgg tax na ba jël na ay waxtu ba xam naa daal lii daal moom mooy téere boo xam ne di ñëpp ci mën a bind ci ama safir lo waaw ñëpp mën na ku doon ku ci doon bind daal mën nga kenn ku nekk wala ñenn ñu nekk nga laaj leen nañu ko dunde boole yépp nag def ko muy liggéey boo xam ne bii lu lu ci di seet rek gis ko si laa maa ngi jégalu ci gàttal gi waaye jéem a jéem jéemoon ko résumé pour pour kii en attendant nag beneen question. bokk na si yërmandem manu manu manuma bàyyi noonu. mu nit ñëw guddi fekk mu tëdd waaye mu ngi tëdd si si biir dong yi xaw a xaw leen yi tuuti kooku ñëw si taalibe yu mag yi rek daal di mu ngi sol ay dàllam daal ni kii kan la daal di tànk bi dóor dóor ko si si fi tolloo paaru sëñ bi niñ ko waxee ah ni kii kan la kii mel ni ku koy gëdd defe na si xale yi la sëñ bi daal di jóg mu ko gisee mu xaw a tiit noonu sëñ ba mel ni ku onk noonu ñoo rangoon yi tuuru mu ne mu ne waa ji xam nga lu tax may jooyam mu ne ko déedéet mu ne ko defe gi nga defe ne kenn ci dongo yi la ba nga këdde ko ab sa tànk nii du gaañ bi nga ma gaañ waaye yërëm kooku nga def loolu moo tax moo moo daanal samay rongoon xoolal xoolal loolu si yërmande te nag yu mel noonu liñ liñ ci mën a wax kenn kenn du ko kenn du ko takk kenn mënu ko lim lu nekk lu nekk joxe na ci ay leçon ba tàyyi ci loo xam ne lii benn fee lay doon maanaam ab def-def boo xam ne bu bu tuuti lay doon mu jëlee mu génnee la ci xam-xam boo xam ne dootuloo ko fàtte ba faw Alxaaji Babacar Sy ci leeral ak fàttali ki xamoon te am lu mu fàtte ak xamal ki xamu doon jëmm ji nga xam ne moo di Alxaaji Ahmad Sakhir Lo rahmatullahi alayhi euh, mu di koo xam ne mosul nangu nag ne sëriñ daara la waaye li mu daan wax ñépp di ko dégg moo di magam dongo la donte mat na sëriñ yëpp daara bu mat sëkk ci côté bu nekk euh, docteur tey buñ doon laaj alaaji ahmad saxir loo wàllum pédagogie ci jàngale ak xam nit ak organisation yi nga xam ne daan na ko def alxey mooy maanaam jàngu yi euh, méthode bi mu daan doxee ndax yow gis nga ne mos naa am wala ndax gis nga ko ci sunu jamono ji maanaam pédagogie bi mu am ci wàllum jàngale li ko dalee ci zéro ba ba nit ki di am bac lan ngay tontu ci organisation boobu nga xam ne alaaji ahmad saxir loo rahmatullahi alayhi defoon na ko ci daara kokki ba léegi muy wéy waaw moom day méthode am dafa wuteeg méthode jamono dafa am wàllu gum leen rawee lu méttee gis ñii mu yor seen ëllëg nu mu war a mel mu doxale noona boo xoolee ku mel ni sëriñ Saam xam ne moom la jëkk a mokkal loo alxuraan ba mu ko jàngalee ba mu mokkal ba pare daf ko ne ah léegi kat da ngay def sa bopp ne yaa ngi door a dal ne damay bañ nga def comme nit ñi ni ñu daan falal di def bu ñu mag bu nekk ne dañuy dañuy dañuy bind dañuy def si dañuy def dañuy deqi loola loola ñuy waaj rek tax ñu ñu ñàkk ci ay at waaye dugal ci njàng mi gaaw jàng lii jàng lii jàng lii daal ko ci dugal ñu commencé jàng téere nangam mu jeex ñu kii jamono jooju menn at bañaar sëñ saam jàng na si loo xam ne li ñay ñay dem di beqi jeeg ak kii yooyu yëpp perte nañ ay at méthode boobu mu jëkk def ak ko kenn si ñooñu ñu mu jëkk formé méthode boobu la continuer boo daan mokkal ku nekk loolu ku nekk dégg la ko man mi wax na ko ah nee nañ kat mokkal nga waaye day mokkal day baax na de kenn du ne baaxul waaye nag melal ni tey nga tey ngay door dal nag bi nga mokkale alxuraan ba man koo tari léegi nag gisal sa bopp ne ku kuy door dal nga ku war a door dal xam nga boobu lim si jiblu mooy alxuraan ji nga jàng nii ba mokkal ko lépp a ngi si biir matière yépp a ngi si biir méthodologie yëpp a ngi si biir xam-xam bu nekk a ngi ci biir boo fexee ba ba ba jàng arab ba dégg ko ba xam ba xam lu la sa texte wax rek boo loolu soxlaate mu ngi ci sa biir mu ngi ci biir alxuraan yi bon nag tàmbalil bis ni ki tey lu la gën a lu la lu la mos a intéressé xam-xam ne la wóor boo mokkale alxuraan ji jàng ko ni mu ware loolu boo ko jàngee daf lay daf daal di yomb wan léegi xamal téere bi lu mu la wax ab leetar nga jot jàngal sa leetar nga jàng ko wan tey ngay door a tàmbali jàng waaw xam nga kooku méthode boobu moo andi bu fekkee ne yàkkamtiw la la mu la defloo boo ci paree daal nekk boroom xam-xam bu wóor parce que da ngay xam ni nga jàng mooy lan doo doo doo jóg rek ñu naan comme ni daan bàkkee kàng yi kàng yaa ngi nii muy muy tari naan ma nangama nga nang saar sàngam di ko bàkkoo mel ni mbër yi loolu la doon bañ yow daal alxuraan fexeel ba li mu la wax lépp wala boog lu baree bëri nga xam ko si li tax nga doon ko jàng li tax nga mokkal ko xam ko nag léegi lu la alxulaan wax te def defeen woowu nag mu def ak ay taalibeem moo tax ay taalibeem wutee wutee woon ak ñu ci des te méthode boobu fu ko fu ko yóbbu ñu ñëwee ko buñ toogee ba léegi nii ñu gis ne ñi ñi fiy jàngale yëpp daara yëpp moo si ëpp daara daara daara bu joo xam ne eh, ña fay génne macha allah li leen intéressé si wàllu xam-xam yëpp dañ koy am lu seen moroom am si lycée bi dañ koy am seen moroom am si université dañ koy am te mokkal nañ alxuraan xam diine xam lépp wala bo lu bari ci xam-xam loolu loolu kenn mënu ko comparé leneen moom daal ci ama safir loo ni mu mel mel na ni yàlla ko melal noonu mu jël ay ay ay nit itam melal leen aw melin woo xam ne ñu ko ci mën a toppandoo bariwul lii daal mooy Cheikh Ahmad Sakhir Lo moom day kenn mënu ko fay li ñu mën a ñaan daal mooy ñaan yàlla ñu mën a def mooy ñaan yàlla mu fayal nu ko te ndaxte din dindi nag réer de Sénégal dindi na fa réer méttee métti boog wala boog wàññi na si lu bari wàññi na si lu bari a bala bala ñu koo xam nag li mu daan wax sa saa donga yi màgg ah, ay dongaam yi bu ñu màggee hmm, ñu si ñu si jot màgg rek day wane nañ exemple li mu daan wax waaye si kanam tuuti ba ñii nga xam ne ñu ngi toll si juróomi junni ak ñeenti téeméer yu teg ak juróom-ñett fukk ak ak ak juróom-ñaar juróomi junni ak ñeent fukk ak juróomi junni ak ñeenti téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom-ñaar defe naa bu ma juumul lool foofu la daara ji toll ñoom ñëpp bu yàlla defee ñu siggi ëllëg mokkal alxuraan jàng xam-xam yi yi ñu war a jàng xam xam-xam yu bees yi yi te nag ñoom dañu ñëwul kenn ku nekk ka nga tollal ci âge amuy jàng yaa ngi koy jàng te tëroo laa moo la alxuraan te daara ji nag ma li mu génnee ci ay nit man maa ngi koy woowee léegi daaru dakatur daar daaray docteur yi ci kanam tuuti noonu lay doon de allah ay ay ay ay yoo xam ne matières yi yi ñuy choisir fa ca gën a kawe la ñu egg te nekk nag ñoo ñoo xam ne kenn mun du leen mën a lim si bariwaay incha allah te noonu la ko bëggee woon te incha allah noonu lay amee itam am nañu ko yàlla fayal damay damay faral di nettali bu ñuy waxtaan si daara yi kooki Mm. Abdul Wahab mbirum mbirum Abdul Wahab booli ndaw mooy wax ne kan moo fi gisagun daara joo xam ne am nañ docteur boo xam ne bii ci allemand la am doctorat jànge ko nekk professeur d'allemand université Dakar ba ba ngay gaañu Abdoul Wahab Wali Ndaw Cheikh Massafir loolu rek moo fi loolu moo alxuraan jàng arab jàng jàng anglais jàng allemand allemand mooy sa quatrième langue nga def si doctorat Cheikh Massafir loolu rek ko kenn mësu ko feneen mu loolu moom ci kanam tuuti nag allah branche yu yi nga xam ne ñooy les nouvelles technologies ngeen ngeen si ay ay ay taalibe yoo xam ne dañuy mokkal alxuraan yëpp jàng yi ñu war a jàng yëpp ba pare nekk ay ponkali cadre si si matière yooyu di toppatoo di toppatoo pétrole bi di toppatoo or bi di toppatoo jamaa bi hmm. xam-xam yu bees yëpp incha allah di ngeen leen ci dégg day fekk ñu ñu jiital seen alxuraan. docteur ci tontu yu matale yu yu nga indi jëmee ci laaj. bu dëng bi ñu la gaaraloon eh, xam naa docteur dañuy desandi ci xereñee gi nga xam ne jëmbët na ko ca daara ja mu di dox ba bis yàlla tey jii moo mel ni dañ koo gën a yokk eh, ba mel na ni sax yeneen daara yi ñu ngi royee ci ñoom loolu nga xam ne alaaji ahmad saxir loo jëmbët na ko ca daara ja moo di euh, xalaat bi mu amoon kiy dogo dal jàng bu ñu taxawalee trois heures ñu dajale mbooleem ñi nga xam ne ci baafin ba di ñuy ij ba ñi commencé sax di boole ñu def leen benn géew jël ci kenn ku leen raw moo xam jàng na juróomi xisbi yu sabbihu wala boog fukki xisbi maa xalax naa mu taxaw ci seen digg di tëri ay saar ba gune yooyu balaa ñuy dem ba jeexal ij ba commencé boole daanaka juróomi si yu sabbihu dañu koy mujj mokkal xalaat boobu mu am ba xale bi bu dalee jàng euh, balaa muy dem bay fer daanaka juróomi hisib yooyu da koy mokkal xalaat boobu noo ko gisee ba ñu bëree bari di ko ci roy Euh, ñaareel ba itam ndax man nañoo xam xayma bi nga xam ne joxe nañu ko ne at bu jot lu mu néew néew dina mokkal ci daaray kokke ndax mën nañoo xam xayma boobu masalan at mii ñu nekk ndax xayma boobu génn nañu ko ne at mii nangam ci ay nit tari nañu euh, mu wuuteeg nag waxuma nag ku tareegu ndax ñi ñuy déclaré ñuy toog lu yàgg yàgg te duñu tari loolu bari na waaye ki tari ba mën a jot saxaadaam léegi ndax mën nañoo xam daaray kokki ñaata la déclaré ne tari nañ alquran ci atam 2023 bii la bëggoon naa nga ñëw ci xereñee googu mu jëmbat ak it nga wax ma ñaata lañu déclaré ne tari nañ bu fekkee ne am nga chiffre bi Euh, loolu laa bëggoon nga ñëw ci incha allah. waaw xarañteef gi de moom macha allah kontaan naa si nga laaj ma ko ndaxte moom dafa amoon une méthodologie boo xam ne dafa xam ne xel ay ay dafa am ay ay variance maanaam dafa am xel moo xam ne ci pédagogie dégg lu mu dégg lu boroom dégg jàpp ko ak xel moo xam ne luñ la rëddal nga gis ko mu jàpp ak xel moo xam ne loo loo loo xës jàpp mu des fa mu gis ne nag ñi bindal te mënaguñoo xam baat yi doon na gaaw seen xel jàpp baat yi laata ñu leen di bind loola tax mu ne léegi xale yi nga xam ne dañuy door a dal te waroon mën a jàng mu di jàng bind bindu yu mag léegi ni muy def mooy nañ yem si seen ijji di liifantu comme niñ koy waxe si yeneen daara yi bu ko defee li si des ñu leen koy digtal ñu di ko ñu di ko mokkal ko tari mu nekk mu nekk njàngum gumba xam nga daara yu bari noonu la ñuy jàngi waaye njàngu nguma a ñuy jàng da nga ñëw rek ñu dila sàngay tari waaye bu buñ la tegalee texte bi si boppam mën loo ko mën a ijji loo ko mën a waxuma sax boole waaye loo ko mën a sax ijji léegi nag mu ne day def ñaari méthode yi bu ko defee ñu commencé ñu leen di rëddal habajada ba pare nag ñuy ñu ñu tàmmal seen xel lu ñu lu ko noonu loolu moom bañ ko commencé yàgg na ñun ñëpp si lañ jaar waaye ñaari méthode la woon sax faf dañ ko daan def mu neex lool ñu gis ñi ñi nga xam ne dañu door a tàmbali buñ tàmmee si njël gi noonu ñu yeewu di tari di tari kenn ku ku man koo xam ne kii moom mën naa liir mën naa tari jiite leen ñu dem ba juróomi Égypte bu ñu bu ñu demee ba min Égypte bi yooyu yëpp dañ koy jàng mu gaaw léegi nag ba mu gisee loolu mu amoon beneen méthode boo xam ne bi comme alxuraan dañ koy commencé ci alxu ci euh, naasi jëm bakara noonu la noonu suñu attitude noonu la mu ne léegi nañuy tàmbalee itam ci ngoon gi bàkkara jëm suuf loolu beneen façon la woon boo xam ne bi euh, yéen jëfatu leen ko si suba si suba gi xale yi ñoo doon def loolu bu ngoonee mag ñi def euh, daayira daayira bu mag la daan doon benn benn cercle bu buñ ko defee bu pare ñu amul place ñu defaat beneen cercle si biir bu ko defee eh, am kuy dëbbe ñu jàng alif laam miim zalikal kitaab ba fuñ ci yem bu ëllëgee ñu bokk defandoo ko ba xam ne nit ki fu mën a toll ci alxuraan bàqara bàqara moom daf koy mokkal parce que ngoon gu ngoon gu jot ñu def ko si suuf itam xale yi dañuy mokkal li ñu jàngagul bu ko defee booy booy booy li ngay bind moom foo mën a toll si alquran boo nekkee par exemple waman yuslim te te mokkal si suuf ba si kaw te te ngoon gi am ñoo xam ne dañuy eh, dëbbe ñuy ñuy def euh, daayira di mokkal si kaw lañuy daan def ba ba suratul ñu weesu ko ñu weesu ko bu defee di mokkale si kaw di mokkale si suuf kooku bu amaatee ñaari at wala wala ñett rek ak li mu jëlee woon si suuf bu ko booleeg li mu mokkaloon si kaw bu ñu dajee rek mokkal na alxuraan lu mu si tegati mokkal na alxuraan méthode boobu nag te hmm. mooy mooy bi ngay laajte yàgg na fa waaye bariwaayu nit ñi léegi tax na ba kenn mënatul def euh, euh, ñaar yooyu waaye nag méthode yi ñu am yu gaaw la ba tax na léegi nit ñaa ngi mokkal si ñeenti at am na sax ñu am xel mais mokkal si ñeenti at ak genn wàll euh, ndax mën nañu xam ñi ñi mokkal ak yaa ngi wax si mbirum dund meeg yooyu waaye dinañ si egsi loolu nga laajte ni yàlla def na si semaine bii laa doon xool gis fu Mamadou Diouf eh, di waxe loolu si laa ko takke mu ne mu ne ren daara yi kooki mokkal loo nañ junni nit yoo xam ne ku si mokkalewul kooki yaa ngi yaa ngi mokkale ci daara yoo xam ne ka fay jàngale kooki la jóge bon kooki la xam nga buñ ne buñ ne daaray mbuur ji dem na ba ay junni nit ak juróomi téeméer wala ñeenti téeméer xaw xaw ma yeneen daara yi fu mu mën a doon ci si réew mi ay ruq kooki ak ñoom ñëpp bu ñu dajalee seen seeni seen ñi mokkal loolu moom lu jaaxal kenn ñu mat junni waaye daal nee na ren ji kooki mokkal loona junni nit ci diggante ñëpp a mokkale ci biir daara ji ak nga xam ne ñu ngi mokkale ci ñu génn ci daara ji ci am ay daara wala ay école ci ah, loolu moom mooy mooy moom eh, eh, ki ki ki la formé bu bu si yow koo formé ci mel na ni moo ko bon bon grâce ak daara am junniy nit yoo xam ne moo ko nañ si ci diggante daara ji ak ak yeneen eh, succursale macha allah mu ngo léegi nag ma tontu la si laaj boo xam ne bi da eh, nga meloon ni ku ko laaj muy muy nu ñuy dundee ak yooyu si dundin bi xam naa ne Serigne Mbuub dañ wax ni moo féetewoo ñaari million ak genn wàll pour ndékki xam nga wax dëgg yàlla ñaari juróomi junni ak ak daanaka juróomi téeméer ku leen bëgg a jox ndékki buñ la nee deux millions cinq cent nga mën ko comprendre parce que du fa des du des sax na am sax du doy dinañ ndékki daal waaye waaye moom du fa yàqu du am bu dee si wallu añ bi xaw ma reer bi de waaye añ bi rek ñu ngi ñu deux tonnes ceeb deux tonnes ceeb ak ya muy nag bon léegi xam nga ne loolu eh, xaalis bu bëree bëri la si foofu nag laay profité eh, ndaa di wax rek ne nit ñi daal loolu buñ ko déggee ak fu ñu mën a nekk ci réew mi ak état bi surtout war nañ xam ne seen contribution dafa war a dolleeku donc bu fekkee ne sax ñu ngi koy def bu metti ndaxte la ñuy former ci université yi loolu la ñuy former ci kokki la ñuy former ci yi moom la ñuy former ci kokki la ñuy former ci CEG yi moom la ñuy former ci kokki la ñuy former ci école primaire yi moom la ñuy former kokki doomi doomi waa réew mi yëpp yi nekk ci école yeeg école primaire ak secondaire ak école supérieure yi ak université lañ leen di jox comme budget kooku kii daf ci am droit parce que doomi réew mi lay tabax nañu war a am warul nekk loo xam ne dañ ko tuddee rek ndimbal c'est un droit boo xam ne bii ñi ñëpp a nekk gouvernement bi daf leen ko war euh, euh, yoral mu nekk loo xam ne li seen bis de fonctionnement la ñoom yolwaanatuñu ñu ngi toppatoo seen bopp ñu koy toppatoo yéen ñii si ngeen ngeen dajale seen seen ñetti dërëm seen juróomi dërëm yóbbu ñeneen ñi nga xam ne ay ñu def bàyyi defal yàlla lañu la man ñu koy def waaye état bi li muy joxee dafa war a nekk une obligation ni mu ni mu ko waree si doom yi ñuy jàng tubaab noonu la ko waree si ñi ñi xam dañ jàng ah, alxuraan ak tubaab parce que léegi léegi ñoom yëpp lañ boole bon comme ñu ngi defar doomu réew mi la sëñ bi waxoon Abdou Diouf rek ba Abdou Diouf demee visite foofu mu ne ka gis nga de daara ji tey ngi nii da ngeen di yar de nuy yar bon nag nu ngeen am ci dimbal mën na koo dimbalee rek waxin la da ngeen di yar nuy yar mooy na ngeen di defe ci école yi fonk leen di leen jox lu ñu dunde ah. ak ak mm-hmm. lépp lu ñu war a aajowoo noonu noonu lañ ko soxlaa ñun itam mm-hmm. am naa daal li ñuy wax ne li duuf si nag yi xëjul si cin li dañuy rek ba beneen ñu gën si mën a waxtaan asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakatu docteur alhaaji cheikh babacar Cissé ñu ngi am mbégte ak kontaan ci wuyu si nga xam ne wuyu si nga ko dara waqul ja alxaqu ngir jëmmi xam-xam ak yitteeg taxawaay bu mat sëkk bi nga ci am ngir fàttali ki xamoon te mujj fàtte wala boo ki xamut nga di ko xamal yàlla moo amuk pay kuy def loola yan yàlla fay la yoola aji xamle wutu la ci soxla yi barkeel dund bi ak njaboot gi te bëri li kem yu mel ni yéen ci société bi ci barkeeb alquranul karim mu mel ni laaj yi ñu bëggoon a mujjee mujj nga wuutu ñu ca laaj ko ba noppi daal di ko tontu ndax li ñu ci bëggoon a teg moo di yi ñuy dégg mu bari lool ci réew mi bët bu set ñu ne daara sàngam wala sëriñ daara nangam moom de am na problème mu nangam ba yóbbu nañu ko nangam wala ay dongom nangam nangam mu mel nii yooyu moom gis nañ ne kokke loolu ay dongom ak lim bi lu mu takku takku loolu moom mucc nañu ci ñaareel ba itam ñu bëggoon a euh, laaj gannaaw bu ñu xamee mbooloo mi daara kokki enca incarné leen mu di juróomi junne yu teg ñeenti téeméer ak daanaka juróom-ñett fukk di ay xale te ay tut tànk e ku leen dajale bu waxtu lekk jote waajib lay doon nga am loo leen taajal e, mu mel ni kon lu ñàkk ñu ne kon dépense kokki ñaata la ak fan lay joge waaye mel na ni laaj nga ko tontu ko ko ndax bu fekkee ne ndékki li képp mu ngi toll ci deux millions cinq cent ñu ne añ bi kon lan lañ war a yetti pour nit ñi mën a tiim dara dong yooyu mën a tiim dara ñu ne ñaari bërigo kon ñaari ton ñaari ton nag moo di ñeen fukki saako yoo xam ne moom lañuy ñuy pour daara ji man caa añ euh, loolu nag dafa mel ni yàlla dafa dëggal waxam bi mu daan wax ne ñun kenn mënut ñoo yor ren ba déwén ku ñu yor ren ba déwén da jeexal mbaa nga xàddi yàlla képp mu ñu mën a yor daan na ca tegit ne lu nu waay di defar na gaaw balaa suñuy dong màgg mu mel ni itam yàlla dëggal na waxam jooju mu di firnde ju leer nañ ñi ci sunu kanam ndax bu fekkee ndékki li deux millions cinq cent la am na ku ko gàddu am na ci donga yi ñoo xam ne ba tey itam ñaari tonnes yu ñuy añee du ñàkk mukk am na ñoo xam ne ñoo ca teg loxo te produit cent pour cent la ñu jàngee ci fi nga xam ne moo di daaray kokki mu may di résidence bi ak lu jëm ci université bi ña ca def ñëppit moo di dongo yim doon wax ne ku ñuy dimbale nañu defal gaaw balaa sa suñuy dongo di màgg yi yëpp mu mel ni waxoon na ko démb daan ko wax di ko takkaraar lu bari daa mel ni yàlla tey dëggal na ay waxam ci kanam ñëpp di wax ne lii yëpp nag dafay tegtale ne ndeke yàlla ni mu garanté doomu aadama ba ci ab dundam noonu la yore dépense am ci côté bu nekk xam naa incha allahu taala waxtaan wi ñu ko gën a yaatal ci lenn ci ñi nga xam ne jaar nañu kokki lenn ci ñi nga xam ne eh, kokki moo di seen yaruwaay lenn ci ñi nga xam ne am nañu information yu wóor ñu waxtaanee ndax kokki kat daara ja ak boroom daara ja idool lañ waxuñu ak ne nit jàngalewut ay junni junni ci ay doom aadama waaye nag mayek alaaji ahmad saxir loo ci wàllum jàngale alquran ak yarak pédagogie si mu ci am bu xasee taxaw dëgg-dëgg mooy nekk élimaan bi nag fii ci biir Sénégal amul kenn kuñ koy nattablee ca ña jàkk ba ci sunu jamono yàlla nag mooy seet lu ko neex mu def ko def na ne alaaji ahmad saxir loo kenn la ci ñi nga xam ne raayab alquran bu yëkkate ko moom sañ na ko yëkkati te gëmuma ne dana bëri ñu ko ca ñu ko ca gën a yëkkatalu di sant bu baax a baax di gërëm doktor alxaaji babakar Cissé waaye di xaarit yeneen mbokk yi nga xam ne jaar nañ fa ak yeneen mbokk yi nga xam ne dëgg-dëgg xam nañ lan moo di daaray kokki di sant bu baax di gërëm di ñaan borom bi subhanahu wa moom mi nga xam ne moo di boroom lépp yal na yàlla dugal ko aljana ëllëg bi xëyri saabir walaay xaab waaye mu defal ko buuñaayit mu bokk ca ñay taxaw ca bunt ba di ramm doomu aadama yi yàlla na ko yàlla defal defal ko ay wéy juróom defal ko mbooleem ay taalibeem waaye defal ko mbooleem ummal islam bi yëpp bi hurmati nabiyina wa shafina xadan muhammad alayhi salaatu wasalaam bi hurmati allahuma salli ala sayidina muhammadil fatihi lima uxliq walqaatili lima sabaq nasiri alxaq bilxaq walhaadi ila siratika almustaqim wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaari alazim subhaana rabbika rabbil izzati ama yasifun wa salaamun ala almursalin walhamdulilahi rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi dégg sunu kàddu liy xew at mu jot muy xew-xewu lislaam moom lañ leen di fàttalil muy annuel dinner fundraising bu mag boobu nga xam ne mu ngay xewee ci Staten Island ci taxawaayu ICFA buñ ko waxee nag sunu xel yëpp def ci imam Muntaqa saako borom xam-xam bu mag bi nga xam ne tey mooy jàngal ndaw ñi di jàngal mag gi ki miin Makka ak Medinatul Munawwara nee naa la imam Muntaqa Sakho mooy éviter mbokki jullit yëpp ca Staten Island ci jumaa ju mag jooju nga xam ni mooy masjid al muhajirin wal ansar nee naa la mu nga nekk ca 740 Delafield Avenue ca Staten Island nee naa la masjid bu mag boobu imam Muntaqa Sakho ku ne xam ko ci lislaam moo tax béréb ba dem nañ ba bëgg nag building bu bees tàq boo xam ne nii bu ñu moom la ngir lislaam bi mbokk yi diine boobu ñuy woote muy diine fundraising nee naa la ñëwal joxe sa alal waaye ñu servi la nag nga lekk mën a déglu sa diine waaye jël la nga am def ko ci yoon yàlla Imam Mountakha Sakho bis ba agsi na kañ lay doon yemook samedi décembre 23 2023 ah mbokk yi nag heure ba day teel a tàmbali ban heure lay doon cinq heures bëgg na ñëpp teew ca béréb ba ndax su ko defee la ñu fay dajale ñu mën koo dajale daal di mën a teel a delluwaat nag ndax ku ne xam na ne certain ay leen lay xewee kon mbokk yi lu ci waay am te bëgg ko cee def te sori jëlal numéro zel bi ma lay jox 347 265 7703 loolu mooy numéro zel bi 347 265 7703 mbokk yi nee naa la bëgg nañ building boo xam ne nii tey képp koo xam ne nii tey ñëw nga wala nga bëgg a jàng sa lislaam da nga mën a ñëw ci béréb boobu moo tax ñuy woote fundraising boobu kon mbokk yi jël leen ngeen gaaw ñëw def seen alal ci yoonu yàlla Imam Mountakha Sakho woote na ci taxawaayu ndimbalu ICFA kon nag mbokk yi bu kenn tardé bis baa ngi noonu woo nañ leen ci te yaakaar naa képp kuy këru diine te nekk ci cinquante états yi rawatina ci biir Amérique rawatina New York City ñu ngi woo ñëpp nag rawatina consulat ak association bépp organisation bu nekk ci dëkk bi bul tardé bis boobu le vingt trois fii ci Staten Island